Mikaayil tuddee ko Zakiru ñu soppi turu Asrafilu tuddee ko Raakibu yàlla topp day soppi turu Azrailu itam moom mu des fi Saamir nga xam ne moom du wàcc ci guddi gi te Azrail mooy malaat nga xam ne mooy jël bakkan yi yàlla nag daal leen jox parasol boo xam ne ñu indi ko àdduna daal di ko tiimale ñi nga xam ne ñooy dundal guddi gi pare tool yu bari la nee na benn bi liwaawul xamdi la tudd benn bi liwaawul maxtila la tudd benn bi liwaawul karami la tudd ñu fab liwaawul xamdi daal di koy samp asamaaw diggante muul koofu maalo koot nga xam ni ku mu tiim rek nga seeru Moustapha yow a xiyam kon loolu dañ ciy dégg ni guddi gi rek malaaka yi ku ñu tiim ngay màggal guddi gi rek yàlla du la ko fayee lu dul tàbbi àjjana Jibriil daal di fab li waaru maxfira mooy parasooru njéggal samp ko ci kaw Madinatul Munawwara leeral nga tiim xabru rasulullahi malaaka yëpp di sujjoot lillahi buur daal di signé jox yeneen mu signé naa jéggale naa tey sàmba nga xam ne suñu borom bis bi dafay déggal yeneen bi wax yi ma gëm te topp la ma ne tixee rasool taxataa taxam la yàlla ne ko topp yeneen bi man nga toog man se man nga toog kon sëñ bi nee na na bis bi day dëggal yonent bi ci guddi gi ci jéggal loo xam ne jéggal na ko xeetal ko nee na jibril li ko suñu fab li waaw rahmati sàmm ko ci kaw tax di rahmati ngir suñu borom jéggal jaam yi waaye nee li koy defee suñu day tuur yërmande ci guddi gi yëpp ci mboolem jaam yi malaaka yi sax di sàbbaal sàbbal di ñaan suñu borom di jéggal jaam yi nga xam ne ñoo dundal guddi gi Jibril bi itam daal di ko lewaawul kare mi daal di ko timbale jullit yi malaaka yëpp nag daal di wàcc nee na guddi gi malaaka yëpp xam ne dañ koy tudd yàlla di fa jàng alquran wala fi ñuy taxaw di julli ngir màggal guddi gi ak màggal alquran xéewal yi ak wërsëg yi daal di baawaan ci doomi doomi aadama yi saawaat bismi rabbil alamin ba fajar maa salamati ñu dellu li saba nga xam ne ne guddi gi maanaam suñu wàccee suñuy dellu ko suñu borom dañuy mel ne dañuy feet ndax dëgg duñ dëgg faral julli gi seen bàkkaar daal di leen tiim tiimale yërmandeer suñu borom nee suñu demee suñu borom da leen laaj ay laaj suñu borom da leen ne na ngeen def ak waa duniyaa malaaka yi dañ koy tontu ne ko ful yu baax ya far yu bon ya nga xam ni bi loo ko def mu doon salaatu ala jàng alxuraan jàng xasida lu mu mënti doon mais li nga koy fula soo ci defee sabaa itam lépp suñu borom da koy jéggal ndax nee na guddi gi xam ni sax mënoo maanaam wax salaatu ala nabi tële ba mënoo jàng alxuraan wala jàng xasida nee na soo laalee rek toog guddi gi ngir dundal ko suñu borom dafay daal di jéggal. waa Kilaab mu jéggal nga xam ne soo laajee toog ci bërëb di dundal guddi sëriñ bi neen suñu borom dala ciy jéggal ku fekk tam ngay sikkal suñu borom dalay booleeg saakir mu faj sa aajo tuddee Abdul Xaadir ku ñu fekk ngay rukkoo ngay julli ñu wan la raaxi mu ful say ràkk nga sigi saafir di aji texe fekk itam ngay nelaw ci biir màggal ga waaye ñu téye ñu fay la génn wàllu guddi mais koo xam ne ñëw nga sax si jotaay yi dundal màggal gi màggal guddi léeg-léeg xaaral suñ borom dogal nga am gàllankoor bay nelaw nee na bu bu teel la ñuy fay ñu koy dundal lañ lay fay ndax am nga yeneen mais itam yàlla ne la dale mulkeeg ma ko malakoot lépp lu dale diggante ko asamaan wu suuf yëpp déggal naa sama jaam yëpp ndax nee na guddi gi suñu borom day xool jaam ni xool bu yërmande مراسل بيتجيوني من مصطفى زيني في قولة جامع لليلة الخادمة زيني في بودي نخيل يمن زيني في قولة حاجة لوين القول زيني في قولة واحدة كم لولا بنا تكتمتيك بودي إيمان بوما بودي جدر بودي فاق باتار بودي فول أيام مرح كوشي نكرك وليكو مادر أبنا سطور دينارو

borom wàcce jaarale ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ko diggante Màkka ak Madina mu tàmbalee ci Iqra ci guddi gi nga ne guddi ñaar ak juróom-ñaar la Alxuraan jëkk a wàcc te am nañ tawféeku Laylatul Qadr itam tombé ak ñaar ak juróom-ñaar nga ne guddi gi la Alxuraan jëkk a wàcc ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam daal toll ci ñaar fukki ak ñaar lamboo na moom alxuraan mbooleem atte yi nga xam ne jullit bi aajo woon ci dundam ni muy jaamu boroomam ak ni muy nekkee ak ay moroom jaamu yàlla yi cër bi def muy julli woor nattu azaka gëm yàlla nga xam ne yooyu noonu yëpp aj màkka yooyu nga xam cër moo koy def ak jaamu yàlla yi nga xam ne xol moo koy def te yooyu bokk na ci jëflante moom la ñuy wax muamalaat jëfan jëflante diggante jullit ak moroomu jullitam loolu itam doon loo xam ni suñu borom jàngale na ko ci biir alxuraan waaye itam ak ni jullit bi naka la war dundee ci biir société naka la war a dundee ci biir biir société bi moom alxuraan nag muy téere boo xam ni moo kawe mboolem téere bu su borom mu wàcce ndax téere yi toll nañ ci faqaqadun minal fi téeméer la ak ñeent ndax suñu borom téere yi mësa wàcc yépp toll na ci téeméer ak ñeent alxuraan nag moo ci mujj waaye semmal na yooyu yëpp ndax téere yeneen yëpp ay texte inspiré la alxuraan nag texte révélé la moom moo tax téere bu dul alxuraan nag texte inspiré la xalaatu nit dugg na ci waaye alxuraan moom lépp ci sunu borom rekk la jóge moo tax mu kawe lépp mbooleem tam ñi nga xam ne nekkoon na ci téere yooyu su alxuraan dajale na ko ci jàngale moo tax sembal na leen ñoom ñëpp ci waxin ak sunu borom ni mu ciy waxee ba na sunu borom nee na nit ak jinne suñu dajale woon li ñu mën yëpp lu tax ñu mën a wàcce benn aaya alxuraan kon alxuraan mi ngi noonu ci yéemeem gi ak ni mu yéemee booleeg leer ngu rëy nga xam ni moo nekk ci moom ak barke gi nga xam ne moo nekk ci moom te mu làmboo ak aar gi nga xam ne sunu borom moo ko aar alxuraan nga xam ni dafay sax rek dafay des ba faw inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu la xaafizun kon niñ ci déggee mooy alxuraan sunu borom da koo wàllu meloom ndax koo xam ni sax rek wax wa xaddimun maa lahu bidaaya wa su baqaa in maalahu nihaaya alxuraan kon da di loo xam ni tàmbaliwul fenn dafay nekk ba fowre rek ginnaaw nag alxuraan dayo ji la am kon ñun jullit ji war nañuy xool saa su ne naka lañ ci jariñoo jariñoo ci ci jéem a xam li ci yàlla wax ñu koy jëfe waaye di xool li ci yàlla di wattandikoo julliti ñu koy wattandikoo di ko jàng itam di liggéeyal alxuraan comme ni nga xamni ni bi non la jëlé joko yépp jox ko alxuraan nga xamni ni dem na ba wax ci lo xamni mën na am su ko jot gi may ñu dugg ci biir ni mu démé ba suñu borom rafaatale ko alxuraan ci dundal gi mu ko dundal ak di ko ak di ko ak di ko tasare. ak lool nga xamni ne soo koy def sëñ wal naan mujj wal jikko ak magayam patax na yonent bi sallallahu taala alayhi Wasallam daana yee julli ci ci ngëneelu liggeyal alquran di wax ni xaybukum man taallama alquran wa allamahu nen dal ki gën ci jullit ki gën ci yeen moy ki nga xamni dafa sax di jang alquran ba nopi diko xamle yonent bi tam wax na ni nit ñi nga xamni bu ñu ba yàlloo mbugalum suñu borom kon fi jamono toll rek nga xam moy yalla bari wax ju bon bari jëf ju bon bari nit ñi sax melni legi alal rek lañuy ñuy jaamu dem nañ sax ba mel ni yàlla ñoratu leen ci lu bari nen nag su demee jamono su demee ba toll foofu nga xam ne nit ñi dañuy yeyoo mbugalum sunu borom nen suñu borom su demee ba di leen mbugal rek su xoolee gone yi nga xam ni nekk nañ ci daara yi di jàng alxuraan rek da leen daal di jéggal alxuraan nag di ko jàng ak di ko dundal am dooleel sëriñ bu mag bi wax na ci wax yoo xam ne war naa tax ñu ñëpp ñu gën ci cee góorgóorlu xiir ci suñu jëm bopp xiir ci suñu njaboot di ci tibbee ndax jullit bi li mu wuutee ak ki dul jullit mooy ku dul jullit lépp lu xew rek mën na cee demee xelam bu sell ndax yàlla dafa bind nit jox ko xel ngir mu koy jëfandikoo ndax sunu borom bi mu bindee lu bari def lépp di topp ndigal muy mindaat yëpp min li sunu borom bind yëpp dafa bëgg a bind lu dëgër bopp li lu dëgër bopp mooy nit suñu borom na bu mu bëggee bind lu dëgg bopp da koo jox xel moo tax nit ki ni fi ñu toll suñu ubbi woon fii buntu téeméeri xar suñu fi jaaroon xar bu jàll nga dóor ko yat terewul téeméeri xar yëpp dañuy ñëw nag instinct la ñu am waaye benn nit su jo su tego fukki nit tam kenn su jaalee ñu dóor ko yat keneen ki su ñëwee fu mu jaar ba duñ ko dóor yat lay xool loolu mooy xel ak instinct yàlla nag moo bëgg bind loo xam ne daa dëgër bopp waaye itam am lu mu ko digal am lu mu ko tere di xool ndax gëm na sëriñ bi nag daal di wax ni am xel dëgg mooy jël sa yitte yépp jëme ko ci di jëfee ndigalu sunu borom yi ak di wattandiku ay teeral moo tax sëñ Tuubaa daal digal jullit ñëpp ci farlu ci alxuraan ak di ko jàng ak di ko dundal amma fawaidul qiraati faqat raxaba fiha xawla bandi min naqat فمن أراد الخطبة من مولاه فليقرأ فليقرأ القرآن لا ينساه قلت فمن يريد غدا الرحمن فليثبت تدبر القرآن أدم تلاوة لسل الكتاب ولو ثلاثة من الأحزاب في كل يوم دون هجران كرما طلبة العلم له زو تمام وبعد من تصوفوا وزعموا بأن ما هم فيه منه أعظم وذلك الدليل زوم وكذب قد غرهم إبليس فيه فاقتلي لأنه مادة كل علم في هذه الدنيا بقول القرن لا تخجرنه وله مؤبدا واستنبتا ما شئت منه أبدا من العلوم مثل صالح السلف إذ كلهم من لج بهره غرف وكل وصف فيه مقر ربنا عبادة تسفه wal tahjina kullu sifatin khadnaha ibada anha wa janibha tahus rashada fa innahu subhanahu ma anzala illa li ta'mala bihi fasta'mila serign bi nak dali wax dinkane bu am solo nah nena, bo am xam xam yeb depo nañ ci wax ni nit ki su fekke dafa su jang alquran neena ku beug am jege yalla dem ba jege suñu borom sëriñ bi nee na ngay saxal di jàng alxuraan mo ci gëna gaaw nee ko xamni da nga bëgg ngërëmul yalla sëriñ bi del jàng alxuraan te koy settantal ci lu sax sëriñ bi nee itam del saxal jàng alxuraan bis bu set nee ak lo saggan saggan donte ñett hizib la sax ma lay digal yow mourid bi ma lay digal yow julit bi nga sax ci bu ko bayyi mukk ndax nee amna ño xamni dañuy dem ba dañuy li ñuy waroo nag mooy dañuy sóobu jàngo xam-xam dem ba yaakaar ni jàngo xam-xam moo gën jàng alxuraan am ñoo xam ni itam dañuy woote ak sell ba yaakaar ni sell gi ñu nekk moo gën jàng alxuraan Sëriñ Tuubaa nee na ñaar ñooñu nag looleenu jàpp fen wu wér la te ak waru la te ñooñu seytaane rek moom moo leen jiital te seytaane képp koo xam ni jiital na sunu borom safaan rek la lay fay. ndax Serigne nee na naka la nit bëggee xam-xam ba mën fee bàyyi alxuraan ndax nee na mbooleem xam-xam yi ci alxuraan la la maanaam jógee dee ko jàng di ci génn lu la neex ci xeet xam-xam ni ko mag ñi daa defee wépp melo nag woo ci gis suñu boroom gërëm ko yow jullit bi yow murit bi maa ngi lay digal nga sax ci di ko jëfee lépp loo xam ni gis nga ci suñu boroom tere ko na ko wattandiku foo toll. kon alxuraan ci gàttal rek daanaka noonu foofu la nekk ci nuñ ci war a jariñoo ci di ko jàng waaye di fexe xam lu mu wax ak sunu borom liñ ci digle ñu koy jëfee di ci àttewoo ndax àttewoo giñ ci àttewoo moo ñuy dimbali suñu jiirub dund sëriñ Tuubaa nag mi nga xam ni yaakaaruñ lu dul moom dundal yépp ci dundal alxuraan la ko jëmale ndax ni ma ko waxee ci tàmbali sëriñ dafa wax ne sama pàgguteef mooy alxuraan waxee na ko nu ndax nit sax su tawaté dina wuti docteur bu ko fajj wala mu wuti garab gu mu nan waaye serigne bi toll na ci digënté mak alcorane dem na ba wax ni ya kitabal karimi anta habibi wa halili wa hablu kunta tabibi nga xamni yaay sama xarit yaay sama sopp yaay sama docteur nga xamni ne ku dul serigne ku dul sëriñ bi rek ci mom rek liñu mësa déggé lool nga xamné na alcorane doyna ko ba manam docteur du ko laal alcorane mo xey faj lépp motax kéro nga xamni jibbi tuba touba seigne moussa ka dako way wayu matale ci digëntem ak alquran nak dafa wax ne bañu yobbo seigne bi touba mo wax ne deglul ma joyle alquran wayam ju matnya wayam bu mat ja bari ñaan da didem didel ab kerkeran di dem ci di dem di del ci duñu wax neena ci alquran ci lay gisee gën ji mindeef modi kanon ngay noti chef galam gi muy jëlee mbindeef ca bis bu kenn dul taal sax moo alxuraan ku la dee def ci taax di sotti lakk lañ ju baax boole la teg ci lal bu baax te dem fanaan ci néegi ñax nga xam ne ba àdduna jot kër gi këru alxuraan la Serigne Touba kan, moo ko njëkk a def nga xam ne sàpp kër goo xam ne daara kaamil soo demee da nga ko fay fekk am bërëb boo xam ne tam bërëbu alxuraan la ñoo xam ne sëriñ bi moo leen warlul seen lépp warlu len lo xamni seen liggey do dara lu jang alquran ci bis bis bu nek ñu jang juromi kaamil sëriñ bi wax ni tam pak bobu dem na ba taxaw fa rëdd ko ne pak bi mo gën ci kaw suuf deme ci njaare mag ni dinañ la ko won dara kaamil motax seigne Moussa ko wax ko lol mo alquran kula de fi def ci tax seigne mag moy nga xamni musta nangu ci loxam dara lu alquran alxuraan bu mag ba ab loxam du laal deureum musta nangu lu alquran mësta yëkkati dara lu dul alxuraan koo lal suñ ko defaree ba mu gën a rafet fekkee nitu kase xelam nu mu ci li muy dem mooy tëdd ci wala toog waaye sëriñ bi lal yi suñ ko defaraat ba mu rafet alxuraan rek lañ ciy teg ndax moom rek moo ko jagoo ko kër te suñu ab jëmmal ko fiñ tollu touba ji am na daaray bu fa ne ci biir jumaa ji goo xam set juromi kamil dañ cay jàng mi tam non moo tax sëñ Moussa ko way ko waaw wax ko bëyit yooyu ne ko ku la dee fi def ci taax di sotti laaj ko lañ bu baax boole la teg ci lal yu baax te dem fanaan ci néeg na mu ne ko moo alxuraan ku la dee fi jàngalu moo ku la dee fi bindulu moo ku la dee fi jàngalu bu ñuy nelaw mu di la wax ndax sëriñ bi dafa am ay nitam yoo xam ni mu nga waxee jàng alxuraan rek mooy seen liggéey ñii bind ko rek ku ñuy wax sëriñ Mouhamadou Lamine Guèye sëriñ bi ni mu fonke woon jàngkatu alxuraan yi sëriñ bi da koo mës sant ñu bindal ko kaamil waaye boobu fekk bët yi dafa gàllankoor sëñ bi woo ko soññ ko ne ko Mouhamadou Lamine bind bi mu la santoon fu mu toll ah mu ne ko Mbàkke ñi ngi ci de waaye bët yi de bët yi de ñu ngi nii daa da dafa wànneen dafa wànn ba mënumaa xool sax sëñ Sooy Mbàkke moo ko nettali nee na ci saa si sëriñ bi ak ni mu fonkee jàngat alxuraan yi dafa joxoñ bët bi ne ko yow yow yow wànnen mi bàyyi bë bàyyi bëtub taalibe jàmbur nga xam ne ba ko sëñ bi waxee ñetti yoon dafa ko ne demal nga bind ko te nga yëpp ma ko nga xam ne bis boobu la tàggoog wànneen woowu noonu ndax am lu mu doon bindal sëriñ Tuubaa nga xam ne mooy ki nga xam itam ci ñetti fan moom lañ mës a gis koo xam ni bindal nañ ko kaamil bu mat sëkk ci ñetti fan moom lañ gis tam koo xam ne njabootam bu mu du mu juut bind na kaamil ci loxoom tey soo demee tubaa soo duggee daal daali kaamil amul leewu Sëriñ Touba booy dem duñ la ne kaamilam bu mu bind ci loxoom mi ngi nii nga xam ne loolu rek mooy seen liggéey sëtam yi itam ci loolu rek lañ ne njabootam gi itam ci lool loolu loolu ne ku dee di jàpp ay junneem di def ci yow ba xal bi archi bi Sëriñ Touba nee na sunu bay sunu borom da koo may loo xam ni tax na mbindam melni da fay jubal mourid bi nee so xay jàng dalay lay jubal moo formation accélérée mo ci ne mën nga gis ku deung lol melni man waaye bis bu jubloo xas de rek tambalé bax te kenn do xam lu tax mu bax serigne touba mo ci leum mo wax ni wajan tawalifiya mis murshidi wa badani sahih wa khalbi arshidi serigne touba itam mo wax ni wa min yaqbal maliki khurufi xaaidatan lil birri wal maxruufi nee na suñu borom nangu na ay bindam da ciy womate di jëm ci lu baax ak njekk nee xas xasida ku koy jàng ci lu baax ak njekk rek nga mën a jëm mënoo sax jëm ci safaan kon lépp loo xam ne day womate ci lu baax ak njekk war naa góor war naa góorgóorlu wajal xuróof ya ujuran baax ya bilantihaay ndi jinaani raaq ya sëñ Tuubaa nee na ay bindam tuyaaba la yoo xam ne day wëy dañuy dem ba àjjana amuñu fu ñu yem saa su nekk tuyaaba yi gën a mag wajal kitaabati ka mistil xajji wa sawmi wa salaati ahli najji sëñ Tuubaa nee na bindam mi ngi mel ni aj ak koor ak julli gu ñu nangu nee na taxawaay boobu noonu la am yooyu yëpp soo koy def sooy jàng bind bind sëñ bi nag bu ñu nangu la wax moom bee sax soo koy maanaam sooy julli ak lu muy màgg-màgg danga ci am yaakaar bi waaye sëñ Tuubaa nee na moom yool bu ñu nangu nga ciy amee wajal bi xatti sururan abada li jumlatil amlaaki yaa man obida nee na mbindam tam day bégal malaaka yëpp loolu dañuy xamee dara loo xam ne mooy waral suñ koy suñ koy jàng malaayka yi day jaayoo isa katab tëzza anchul baax yi wa sabaxat malaayku ti baax yi kon alxuraan mi ngi noonu mbindum sëriñ Touba mi ngi noonu Serigne Touba mi ngi noonu guddi gaa ngi noonu yàlla na suñu borom defal lépp loo xam ne ñu ngi koy sàkku jéggal ñu ci suñuy bàkkaar fëlal ñu ci suñuy yiw def ñu ci ay jullit yu dëggu te dëggal yoo xam ne ci li yàlla bëgg rek lañuy ñuy nekk lu jamono jaxasoo jaxasoo ñun nañ nekk ci li yàlla bëgg rek xam ne loolu moo ñuy jëriñ àdduna ak alaxira xam ne bi lépp lu mu jublu lu dul ngërëmal yàlla ak lu mu koy amee coono rek la ciy jële kon yàlla suñu borom dimbali defar suñuy xol ba lu waay yéene boppam mu yéene ko moroomam nga xam ne loolu mooy dénkaane bi sëñ bay jaxate nag dafa wax dénkaane ba am solo dafa wax taalibeem bu tudd medul mu ne ko dinaa la jox fetal woo xam lo ci diir di ko jam naka ne medun ma jox la ak fetal ko xam du la sonal te gën ci yow yow fetal di poudre ci bal ñu ne ko fetal gi mooy la mu ne ko yéene lu baax wax lu baax ci ku bon ak képp ku baax lii daala dig fetal ku baax jàpp ko yow def ko fetal nee fetal daal fetal bu baax boo xam ne loo ci diir jam ko mooy yéene lu baax ak di wax lu baax ci koo xam ne da ngaa jàpp ni dafa bon ak koo xam ne da ngaa jàpp ni dafa baax nee na loolu na nga ko jàpp muy sax fetal nee na yéene lu yiw te defu yiw comme ku ko am nga am ko yow ku ko amul nga am ko yow lii lay jëriñ di la musal nee na maa lay diggal tam nga yéene yiw ndax yéene yiw mooy noppal jullit bi jullit bi su yéenee safaan mu jullitam day sonn rek ndax yàlla suy defal darab jaamam du tàggu kenn suñu borom itam noppi na ci lépp moo tax mu diggal ñu yéene yiw ak jëfu yiw loolu itam mooy li nga xam ne mooy dénkaane bi defar suñuy xol ba xajoo jaamu yàlla yépp defar suñuy xol ba li suñuy borom digal ñu mën koo nangu ak xol bu neex mën di ko jëf ak xol bu neex wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu mu lay sant bu baax di ñaan suñu borom gën a guddal sa gën a cër yi bu baax moom mi doon waxtaan mooy sëñ Mbàkke juuf nga xam ne ci daara ji la nekk daara Xuyóoru Muharram doon jëwriñ ci mbooloo mi weesoo jëwriñu daara ji sëñ Matar ñaa moom mii lañ ci toftal mu doon ku am passeef doon koo xamante nii yéenéem ci liggéey bi mbooleem bokk taalibe yëpp mën nañ koo seede kon dañuy ñaan rek suñu borom musal la ci ndog gën la defal jàmm te defal ñu ko ñun ñëpp ci ba suñu borom dogal ñu jiitu te faw ñun danañ leen fekki ñu leen di nag fàttaliku ci bis bi ci ay ñaan ku ci mel ni Baye Murit Mbay nga xam ne waxtaan wi moo ko daan taxawee sëñ Aline Badara Fall Bayti Guèye soxna Kumba Guèye sëñ Mamadou Mbeng Xalifa Njaay Maam Moodu Njaay Maysa Mbay yaa Koli Duudu Jong sunu yaay soxna tuuti Dukkure Aziz Dia Jules Ngom Oumy Diaw Mbaye Ali Sonko Moussa Baye Moustapha Lay sëñ Gànji Guèye sëñ Mbaw Ngaala Yalxaay si Thione Seck Abdoulahi Fall Demba Ousmane Mbeng ak Farma Dieng Mor Gay Diouf Serigne Sidi soxna Aji Xujja Guèye Amadou Jenn soxna Roqee Jéey alxaaji Badara Seen soxna Awa Fara Gise Duudu Mbeng ak Cheikh Mbeng ñoom ñooñ ñépp nag ñii ñu lim dañ ci yéene mbooloom jullit yépp sunu boroom jotal leen ci kaamil bi ak ci ñaan yi nga xamante ni moom lañ leen di ñaanal laata loolu nag ñuy sant bu baax sëñ bay Fall ni nu ko waxee woon léegi ci taxawaayam loolu day baax ñu biral ko ci kanamam mbooloom daara ji yépp ñu ngi koy sant ci taxawaayam ndax moom ci daara ji la bokk bis bii tamit di guddi laylatul xadri daf cee am tawféex ndax dañ daan def weer wu ci nekk dañ daan def dañ daan am kuñ jox mu aye guddi àjjuma moom nag suñu borom dogal bis bi mu war a aye mu tombeek guddi laylatul xadar boobu moom mi ci daara ji doon étudiant nekkoon ci kuréel gi ñuy def nag laylatul xadar bu jot ñu ñëw ànd kook moom loolu nag da cëram mu doon koo xam ni ku am yar la ak teggin doon koo xam ni ku am taalibe la ñu ngi koy sant ci coono yi muy def ci bis bi nga xam ni léppam du ko fekkee alalam ak jotam ak waaye loolu lépp boppam rek la koy defal waaw di dellu santaat waajuram bu jigéen di sant tamit sëriñ Duudu Mbay ñu ngi koy sant ci teewaayam ko ñaanal suñu borom guddal fanam te wéral cëram ci barki Cheikhul Khadim ak mbooloom mbokk yi fi teew yépp ndax bis bi bu jotee mbooleem xarit yeeg dëkkandoo yeeg sopp yeeg ñépp kenn ku ci nekk dangay ngay basal lépp ñëw taxaw Issa ñu ngi koy sant bu baax sëñ Assane Mbay defe naa ko lim juum sëñ Alaaji mbay ñoom ñëpp di ñaan rek lu ci waay def yàlla na la ko suñu borom fay ci barki Cheikhul Khadim waaw kon loolu mooy kàddu yi cant ak yi ngërëm yoo xam ne dañ ko doon yëkkati ci turu daara xuyóoru muharram dan min rabbihim wa ulaayika humul muflixuun bismillaahi rahmaani rahiim xul wallaahu ahad lahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillaahi rahmaani rahiim xul wallaahu ahad lahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillaahi rahmaani rahiim xul wallaahu ahad lahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ بالناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله ميم الله اكبر من كل كريم اكرم من موحد له تكرم أسلم له كل كان ايماني ولا سمي الإقصان للرحمن واجه بالشرك بلا كفران تبقى حسابه مع النيران بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات وذكر الحكيم وجنه لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما سرقت فيه من الآيات وذكرنا بما تركت فيه من المصلات وكفر بتلاوته أن خيرات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا حفظ القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تاهيل أو زيادة أو نقصان أو تهويل على غير ما أنزلته أو تهجير عند تلاوته أو كثر أو ذليل لسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إزهار بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمحذر من كل ألحان وارزقنا فضل من قرأه ماديا حقه مع الأخضر والقلب واللسان وهبنا بالخير والسعادة بشاوة آمان ولا تحتم لنا بالشر وضلالة والطغيان ونبهنا حبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر وأمنا من عذاب الخبر وأمنا من عذاب الخبر ومن سؤال منكر والنكر ومن أكل الديدان بيد وجوهنا يوم البحث واحترقابنا رقابنا من النيران ويمي كتابنا ويسح حسابنا وثقل ميزاننا من حسنا وثبت أقدامنا على صراط واسكنا وسط جنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن لزم ربيع قلوبنا وجلال أهزاننا وزهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعل أنسانا في الوحش إصباحنا في الظلمة وذليلنا في الخير ومنقذنا في الفتنة واحسبنا به من الزيه والأهواء وكيد الأعضاء يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بزيادة آمالنا وكن بعافية غدونا وآسالنا واجعل إلى رحمتك مسيرنا وما آلنا واصف فيك على ذنوبنا ومن علينا بسر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زارنا وسقط بك زخرانا وانتقادنا من من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرناه خذوا ما تلونا ديو سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولله باي محمد وعلي بدر خال وسرين بيتك بيتك وصحنكم بقي ولله مدمن ولله حارث جاه ولله محمود جاه ولله ميسم بني ويا كلي ولله دود جون ولله تانت دوكري ولله أسجتها wala arwaaxi suñu ngom bu ummi jow mbay wala ali sonko moustapha gueye wa ganji gueye wa mbaw ngaala wala arwaaxi elaj con seck wa abdoulahi fall wa ablaye demba wa ousmane meng wa farma dieng wa noha samouré wa mor gay diouf wala waaye sëriñ siidi busu wa soxna aji ku jege ولا رواه أمر جم وصرم وقيل جي وإلى في بدر السام وأو فرق جسم ودود منك دولار وشيخ منك ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم بارك سواء ما خلقناه وما ترنا لسيدنا بنا ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد حاتم النبيين وإمام المرسلين ونجني وجميع المسلمين معا ونجي والدتي آمين يا الله واغفر لنا ولها واستر مهائبنا والتفنا وبها في الهول يا الله أنها تجاوز وإيانا حملنا فما لنا سياك وأنت البر يا الله في برزق مع حب كلها وزغا ومن كروب وخوف نجي يا الله لا تقتطعها بما ليست بحاجة ولا تخيب رجاءها فيك يا الله وأسقنا معها من مائك وسلاما يكفه من جميع القلق يا الله افرقهما ربي كما حضر بيان سعيداني الإمام الأنبياء نبيك الهادي ومحمد صلى عليه بسلام السمد بجاه العظيم زدني تيا واغفر به لي ولوالدي واغفر لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشرة في الخنقمة في القبر والقيام والنشر والحشر وزد قيام لها القيام كل ليل بسوى ونجني من الغفول والهوى دعوتك اللهم يا مجيب بجاه من بجاهه تجيب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب ومجيب سميا هب لأبي وهب لأمي سرمدا مغفرة ورحمة بأحمد قلت الحقوق والذنوب أنهما بجاه عظيم وتكلمهما سق الصلاة النبي بسلام في آله ولهما كن يا سلام a siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim. Mbàkke borom Tuubaa